abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. wala lii kat su ma ko defee mën neen maa dàq sama palaas seet ca seet ca naqaru yàlla lu jiitu nga cay seet sa place wala nit ñi moo tax mu ne nit ki duñ ko mën a tuddee tuubkat su fekkee daf ne bakkaar bii ma doon def kat njaalo bii ma doon def bàyyi naa ko ndax dégg naa ne sidaa am na. te looloo koy joxe kon yow ragalatoo yàlla nekkatoo jaamu yàlla jaamu feebar boobu nga kon bàkkaar bi ngay tuub tuub ko ngir jëmmi yàlla rek waaye bu feebar ba tax ndax am na koo xamante ni sax xëy na njaalawul te am na ko te mu nekk dogalu yàlla rek moo tax ñu ne nit ki duñu ko mën tudde tuddee tuubkat su fekkee dafa wax ne ger bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nanu ñuy surveiller ñii ger te ragal naa ni suñ ma ci jàppee kon mën na ma mën nen ma dàq sama place te kon sama taranga dana yàqu kon yàlla taxatul ñu ne nit ki duñu ko mën a tuddee tuubkat su fekkente ne la tax mu bàyyi bakaar ya lot a tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci néeg bi nga mën koo jëlt kenn du ko xam yàgg yàlla kese nga mën koo jël te kenn du ko xam nga ne ragal naa yàlla du ko jël mukk ndax ragal naa sama digganteeg sama borom waaye xëy na alal ji su ma ko jëlee nit ñi xam ne ne man dong maa nekkoon ci néeg bi su ma ko jëlee dana na xam ne man maa ko jël nga bañ koo jël loolu du ndam du ngóora waaw ragal nit ña tax amul benn njariñ kon daal tuub liñ ci bëgg moo di boo ko dee def na jëmmi yàlla rekk tax ñu nag di tax ñu bëgg ci nit ki mu rëccu la mu defoon buddeeku ca moo di yonent bi sallallahu moo wax ni an nadamu taw ba maanaam rëccu bi nit ki di rëccu la mu defoon ci lu bon yonent bi nee na ak loolu tuub la ndax ku rëccu dootoo defaat moo tax yàlla fexe na ci mbaaxam ak yërmandeem ba ki am kàttan ak ki tële yàlla xoolatul seen kattan seen xol rek lay xool la ñu yéene moom la leen di fay moo tax ñu ne yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay ci jëf moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama dunya li arbaati nafar abdun razaqahu llahu maalan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa yaclamu lillahi fihi xaqa فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق وهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المناذب وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من ñu صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى yàlla séddale na ko ñeenti kuréel jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko wërsëgal alal ak xam-xam mu ragal ca boroomam lool di ko ca jaamu ko ci ay mbokkam jox ci yàlla ak xam génne ci azaka saraxe ci tëral ci way juram yonent bi nee na kii mooy ki gën wàccuwaay ëllëg ca yàlla mu ne bi ko jam mooy jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox xam-xam waan ñu ne bi ko ñetteel ki ko di jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox alal te joxu ko xam-xam muy patam-patami ci alal ja waaw di ca patam-patami rek nee na te lam cay def teguwul ci xam-xam teguwul itam ci lu neex yàlla ragalu ca boroomam mu ngi cay moy jokku ci ay mbokkam joxu ci yàlla cëram génnewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne alal daal mu ngi ca sabar mu ngi ca politique ba barab boo xamante ni rek bëgg na ñu tagg ko fa wax ko fa lu rafet foofa daal lay dugal alalam du saraxe sarax bu nëbbu du dimbali aji ñàkk du dimbali ay mbokkam lu dul ne moom daal alal ja daf ko puukarewoo rekk daf ko puukarewoo rekk yonent bi nee na nag moom mooy kii gën a bon wàccuwaay ëllëg ci boromam wàccuwaay bu bon lay am ndax dafa foye alalam moo taxoon yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne alal ju lew ak a jékki ci loxo nit ku yiw ku xam la ko ci yàlla sant te da di ko ca def ñu ki ko ñeenteel moo di jaam bi nga xamante ni yàlla joxu ko wërsëg jox ko xam-xam moom amul wërsëg amul xam-xam wante nag léeg-léeg dana mébét waaw dana mébét di wax naan ak neexoon daal ma am alal ma am alal waaw bu ma yàlla mayoon alal daal kon la diw def danaa ko def léegi dañuy seet ban diw la wax ci ñii fi weesu su fekkente ni ku njëkk ka te mooy ka doon jaamu yàlla ci alal ja ñu ne kon yàlla dana ko fay ci jëfam jooju la mu fay ña doon jaamu yàlla ci seen alal su fekkente ne nag dafa gis kii ku mujj kii ka nga xamante ni moom la yàlla jéppi ndax jaamuwul yàlla ci alalam mu ne ak a neexoon diw mii kat alal ji mu am jënd ci ay oto yu rafet dugal ci ay jongama hôtel bu ko neex dem diw mii nga xamante ni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi di ko way waaw di ko way di ko tëggal naan ko birima muy génnee xaalis di sànni rek di joxe te yàlla taxul joxewu ko ci péncum yàlla lu dul ci péncum seytaane la koy joxe nga ne ak neexoon ma mel ni birima di maye ni muy mayee ñu ne daal yàlla kii nga xamante ni mébét na mébét boobu yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon li ñu bëgg daal moo di nit kii na xam ne daal tuuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mën a jubóog boromam ñu ni bi ko ñaareel ci charte tuub yi ci condition tuub yi dañu bëgg an yastashira qubha zambi wa dararahu dañu bëgg nit ki yëpp ñaaw ak bakkaar bi ak lor gi ci nekk ndax bakkaar dafa ñaaw bakkaar dafa ñaaw yàlla lu mu bañ rafetul waxuñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci mbakaar moo tax ñu ni wa hada يعني أن التوبة الصحيحة لا يمكن معها الشعور باللذة والسرور xiina يتذكر الذنوب almaadiya ñu ni bu fekkente ni nit ki sentir na ni bakkaar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ni loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkaar ba du bëgg xanaa kay dafay mer xanaa kay dafay am naqar lu tax ngir ni def na loo xamante ni loru kese la ci moom def na loo xamante ni itam rafetul ci ak niteem rafetul ci ak julliteem moo tax ñu ne قد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابيه الداء والدواء والفوائد أضرارا كثيرة للذنوب ني سيرن بو ماك بوبو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل نيو سي نياري تيريم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل نيو سي اي لور يو بري يو خامتيني بكار دا نكو وارا مو واخني bakkaar dana waral yu bari ci ay lor bakkaar dana waral lu ñuy tuddee xirmaanul ilm dafay xañ nit ki xam-xam waaw dafay xañ nit ki xam-xam boo bëree looy def bakkaar day tax sa xel nëx waaw xam-xam bi ñuy tuddee xam-xamu yàlla mu di ilmu sharia ak at tafaquhu fi diin doo ko am doo mën a dégg fiq doo mën a dégg atte yàlla ya doo mën a dégg waaraate ndax sa xel day day nëx waaw day nëx ci mën a taataan xam-xamu yàlla yu sell yi kooku mooy gu bari daf koy waral moo taxoon waa ji ñëw ci nitu yàlla bi tawat ko ne ko man daal damay jàng xam-xamu diine te itam li ma ciy jàng mënuma fexe ba dégg ko man daal am naa problème dégg li may jàng ci wàllu diine mu ne ko dafa da nga bëri looy mooy soo wàññee say mooy rek sa xam-xam dana dugg dugg bu yomb ndax ñàkk mooy kiis la mooy kiis gi nga xamante ni mooy kiis waaw moom la waykat ba wax ni chakawtu إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي moom ويكتبي جنجفوف كن خم خم kon xam بجي أم sell boo دي bëggee بكار mu ne itam bakkaar dana jur li ñu tuddee alwaxsha fil qalb maanaam xol bu njaay àlle xol bu njaay àlle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demee kon ba nit ñi jóg dem ci fo gën leen a yomb jëm dem ci dëgg dem ci jàkk ju julli wala dem déglu waraate ba wala jóg nekk ci seen ndigali way jur topal top len déggal len teral len su fekke guno dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nanu xamne bakar bàkkaar bari na ndax xol bu njaay alle bu bëgg po bàkkaar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap waaw ndax fecc mi ñu koy fecc ak tëb yeeg melokaan yeeg yëpp da ngay xam ne ñii ay rab lañu la ko waral nag moo di al waxsha fi l qalb maanaam bakkaar yu bari moo waral seen xol nekk xol yu njaay al seen xalaat dootul nekkati xalaatu nit wante xalaatu rab rek la ñu ne yu bari dana waral taasirul umur dana tax mbir yi jafe waaw buntu yi yomboon yépp day dem ba day jafe day difficile lool dana dem ba dépense dootul yombati gor jok faj aajoom dootul yombati nit ñi itam jog def lu baax borom alal yi dimbali ñi amul dootul yombati buntu yépp ay tëju su ko defee bala ñoo xas kenn nu delluwaat ci alquran bi nga xamante ni mooy hôpital bi ñuy fajoo su ko defee daneen fa fekk ay ayat qur'aniya yoo xamante ni danañu mën a faj ba ñu nekk nit ñu wër mën a dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakar yu bari dana waral mbir yi jafe bakkaar yu bari dana waral itam li ñuy tuddee waxnul badan waaw waxnul badan mooy mooy yaram wu doyee yaram woo xam ne day feebar rek léegi nit ñi dañuy feebar rek koo gis mu ngi jàmbat feebar kenn wératul lu tax ndax bakar yu bari kenn wératul koo gis rek mu ngi jàmbat feebar waaw ñi sama bopp bi ñi sama ndigg bi ñi sama biir waaw lu tax koo gis mu ngi naan comprimé lu tax bàkkaar ya bari moo tax wér gi yaram nag dootul yombati ñu ne itam yu bari dana waral li ñuy tuddee xirmaanu taa day dem ba topp yàlla dootul yombati waaw ki bu bëree boroomam topp yàlla dootu ko yombati jóg julli du ko yomb toog ci barab bu ñuy waxee lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tàyyeel ci julli tàyyeel ci woor du dara lu dul bàkkaar yu bari rek su bàyyi woon ay bàkkaar rek jàmm yàlla daal di yomb ci moom kon xirmaanu taa mooy gu bari moo koy waral ñu ne itam bokk na ci yi nga xamante ni dana eh, mooy gu bari dana ko waral bàkkaar dana ko waral li ñuy tuddee maxqul baraka barke dootul amati barke dootul amati waaw mag ñi bu njëkk dañu daan dund te daawuñu am lu ne gàññ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moo di lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel léegi nag ñun da gis ku yor lu ne gàññ te du noppal mu ngi dañ dañu guddeeg bëccëg te la mu yor ne gàññ la tax lu tax ndax li mu yor bari na waaye barkeelul li mu yor bari na waaye barkeelul waaw moo tax nawet yi barkeelatul wërsëg wi barkeelatul ak lu mu bari bari lu tax ndax mooy gu bari ji waaw dem na ba doom yi sax léegi barkeelatuñ waaw ndax mooy gu bari gi rek ñu ne gu bari دانا ورال لي تودي قله التوفيق قله التوفيق توفيق نك مودي جوب دي ووتي مير واو جوب نام ووتي مير فار مو فيك سي لا واو بري نكو نان ا من دي ا اه، امنا سخلا جرومي جوني واي واي فان لا كو وري جيلي واي جيكي جيكي رك ام كو واخو با سي ne la ah juróomi junni yi benn waay ju baax moo fi romboon daal doon ko joxe ci jàkka ji lii nag moo moo moo moo ci sa cër waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba loolu moo di tawfiq moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu daje gestu waaw tawfiq boobu nag fu bakkaar baree dafay néew dootul bareeti moo di qillatu tawfiq bi ci des itam moo di diiqu sadr dënn bu xat bakkaar bu bari dana ko waral dënn bu xat nit ñi dootuñu amati yërmande waaw dootuñu amati yërmande kenn dootul nangoo ti kenn kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusi waaw dañuy dem ba dënn yépp ay xat nit ñi di ëkkoonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bàkkaar yu bari koy waral waaw ñu ne itam bàkkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi moo tax agresseurs yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugg ñu dugal doom ji ci duus xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bàkkaar yu bari ñu bàkkaar yu bari day waral habitude habitude bu ñaaw ci société waaw dangay dem ba boo génnee ci mbedd bi dangay yaakaar ne lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doyadal yàlla soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla waaye teel sa wax jooju ñun ci àdduna leen nekk léegi dangay ngay dégg ñi di ko wax fii àdduna la waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel ndax batu aduna buñ la ko firile bari na ko tudd aduna te te te xamuloo lan moy aduna parce que arab mo wax ni addunya addunya di aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamné amuko daf ko top daf ko daf ko ad-dunya moy kër gu jégen jeex kër go xamanteni lepp jeex kon aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni keur la go xamanteni beccuk la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan te legi timis jot te bu timis joté beccuk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lek mu jeex amna benen keur goy dem te keur gogu lo fu yobul lo fi lo ligeyul fi doko fa kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla, doyedal gi nit ñi doyedal yalla, bakar yu bare tax ñu itam bakar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi doto amati benn valeur ci nit ñi bu ñàkk fayda ngay nek nit so saxé ci def bakar yu bari waaw sa personalité ci nit ñi day nekk personalité bu woyof da nekk nit ku doyadi waaw du am benn personnalité ci nit ñi ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi ma yi di la rëbb waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar nanu xam ne seeni bëy seeni xar ak seeni ganar suba suñu xëyee ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nekk seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena koi koy kudde guddeeg bëccëg xar yek ba yi ñoo ñuy di ñu wax lolu kon bakkaar yu bari day tax bàyyi ma yi di rëbb nit ñi ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki da leerug waaraate du ci dugg leerug alquran du ci dugg leerug njub du ci dugg waaw nit ki bu saxee ci def bàkkaar day dem ba dañuy kaste xolam dara ci lu baax du ci dugg looloo tax am na ñoo xam ne soo leen di waar da sonn rek waaye duñ la dégg ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla du nangu ñaan bi bu bëree lu muy mooy yàlla yàlla du nangu ñaanam waaw ñu ne bakkaar bu yu bari day tax jawwu ji yàqu jéeri ji yàqu day tax